ñoo ngi koy amal ci ay bis yi mu jëm ci wàccaayu màggalu Tuuba muy waxtaan yoo xam ni dañ ciy dalal ay boroomi xam-xam tey nag ñu am gan koo xam ni ku yaatu ab gëstu la di boroom xam-xam boo xam ni aw turam ak xam-xamam àgg na foo xam ni jëmmam doxagul ba àgg fa di Cheikh Moustapha Sylla xëy na bu ñu déggee Cheikh Moustapha Sylla rekk dañ xam ne ci ko jox xam-xam la bàyyikoo ndax bu ñee kuy sa maam ci xam-xam nga ni sëñ ma ñaaw si la kon loolu rek day wax ni ci askan wu bànqaasoo ci diine askan wu yàgg ci jàng ak jàngale ci la bokk nuy waxtaane tey nag ay tomb yu yaatu yoo xam ne danañ ko faram-fàccee ba mu leer lenn na ci boppi mbokk yi nga xam ni ak ump ak umpale daboon na leen ba xamuñu lu ni ci jàngat sëriñ bi jàngat yoon wi bu ko defee dañ ko bàyyi mu nuyoo ñu tàbbi si waxtaan wi incha allah bismi Mustafa bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilah samad albarri al ahad wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammad وعلى آله وصحبه شجعان بدر وأحد ورضي الله عن شيخنا الخديم المجدد mbokk ñi ngi leen nuyu leen ziare di nuyu mboolem alxaq thabit waaye di nuyu itam sëriñ Mouhamadul Moustapha Kamal mi nga xam ne sun kilifa la sun ustaas la itam xam naa daa baax rek waaye noonu ndongo su xeeboo xeebu lañ soo xam ne xam naa ne mën nañoo jàngal dañuy jéem a góorgóorlu waaye moom xam naa xëy na mooy neexal waxtaan wi euh, ñi ngi sant bu baax a baax xam naa di ko xaar ci laaj yi di ñaan tamit yàlla taw feexal ñu njuumte yi ci def itam euh, mu jéggal ñu ko euh, jërë ngeen jëf jërëjëf Cheikh Moustapha di am mbégte lool ci ànd ak yow jotaay bi nga xam ni amoon nañ mébét bu yàgg-yàgg ngir ànd ko yàlla door ko dogal tey dinañ laaj laaj yu ubbeeku nag yu sore sori yu bare bare tamit ndax da ngay kat te juddoo ci yoon wi xam ci lu bare bare laaj bu njëkk bi mooy sëriñ tuuba nekk ci sénégal nekkandoo feek ay sëriñ tubaab bi jekki-jekki seppi ko seen biir génne ko lan moo waral tubaab bi génne ko réew mi di sénégal exilé ko ñaareel ba tamit bëgg nañ lenn ci ak leeral yoonu géej gi xëy na laaj boobu mooy laaj bu njëkk bi ñu bàyyi la kàddu gi Cheikh Moustapha bismillahi rahmaani rahim maa ngi jéglu bu baax a baax nag dafa mel ni sama connexion dafa demoon lu yàgg a ma doon toppatoowaat nu ma duggeewaat ba kii xam naa yëf yi dama bett eh, xam nga mbirum eh, kii moom day xaw a doyar waaye maa ngi koy jéglu bu baax a baax a baax a baax di jéglu mboolem ñi nga xam ne ñoo doon topp waxtaan wi waaw sëñ bi di Serigne sabab bi nga xam ne moo tax tubaab bi génne ko ak ba ñu déclaré du benn xam nga tubaab borom doole joo xam ne dafa dend ak moom te jamono wi ne mbooloo mi yokk kooku da koy déranger surtout bu fekkee bokkut ak moom ab jëmuwaay te nangu te it ragal na ne mën naa jékki-jékki song ko sëriñ bi nag ñim déranger woon dafa bari amoon na si ñoo xam xeyna dañ doon tiit seen mbolo wañiku comme niko ko sëñ ñom ak sëriñ Mahamadul diop dagaa nii leerale am ci itam bur yo xam itam ñeen ñi xeyna na bëgg lu neex tuwab bi wala itam seef gi den euh, borom mbolo mu den ak ñom euh, sonal leen ñu doon ko roxale ak tuwab bi lolou feeñ na bu baax a baax ci lettre yi nga xamne ne bi doon nako bind gouverneur ndar boko jangé da nga ci xamné sabab yi tax tuwa bi dàq ko yooye tuwa bi euh exil ko bu jëm gabon yooye ci la euh ci lol nak lañ top di top yooyu di ko rambaaj rambaajkat yi rambaaje euh, ba tuwa bi sax amna bis mu yabal ab armée ñu né dañuy sét kërëm ne ay da fay né waye tuwa bi ci boppam sax seenu yeewute romb na ko xamoon nañ ne li gaa yi wax du dëgg waaye taxut ñu wóolu ko ndax nit koo xam ne lam nekk mënoo ko saa génne ak tey mënoo ko corrompre mënoo ko nax mënoo def nenn ba message bi mu bëgg a jàllale mu di ko jàllale kooku da leen du neex moo tax ñu tuumal ko àtte ko loo xam ne defu ko in teguñu ko ci kawi preuve itam Euh, nga xam ne ñoom seen bopp sax sëñ Bassirou wax na ne gouverneur bi nga xam ne moo nekkoon Louga te xaakim bi nga xam ne moo nekkoon Louga te mujjoon nekk gouverneur Gabon euh, reconnaître na ne ñoom ci seen bopp lañ doon wax amul waaye euh, doole ji nga xam ne sëñ bi yoroon na ko ak dëgër gi mu dëgër ci diineem loola lañ ko meree woon kon la tax ñu génne ko mooy ragal doole ji nga xam ne sëñ bi da koy am jamono yu ne ah, te doole jooju di yokk nga xam bët bi set fu mu toll boo liggéey ah, mu toll fa neen mbooloo mi bab bu wuti ko sëñ bi lim nekk mënee si ko caa jële ah, yooyu moo taxoon ñu boo ñu ñu yénne ko waaye du waat sax xaar bu ñëwaat ci beneen wakkaat balaa gën a gudd boo gisee lettre bi nga xam ne moom la bindoon tubaab bi ne innahu min muhammad bamba ila amiri ndar assalaamu ala man ittaba al huda amma baad faalam annani la aktubu wala aqulu bi lisaani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع في كلام من يطلب الدنيا بالنميمة والافتراء والكذب والخيانة وأما عدم مجيئي إلى نر فما أوجبه شيء يوجب سوء ظنك بي إلى آخر الرسالة لا تربخوا قد لحبنا لنكو يتنكر جناب الانترنت دفع بري waaye ci tënk lettre bi boo ko jàngee da nga ci dégg ne sëñ bi nekkutoon koo xam ne da doon jéem a jàmmaarloog euh, colonialiste yi directement doonte sax nag xëy na tegoon na loo xam ne bu woyoon projet bi mu tegoon ak ni doon jàngale nit ñi danañ dem ba euh, loola mën a ami ay jamono mbaa état islamique am waaye nag jamono jooju moom doontoon koo xam ne da doon jéem a jàmmaarloog tubaab bi euh, direct da ci dégg itam ne am na ay workat yoo xam ne dañ doon wax lu dëgg ak rambaaj contre sëñ bi di buñ demee ca euh, pouvoir colonialiste yi fi woon di ko rambaajeek ñoom euh, di wax loo xam ne xëy na ñoom seen intérêt yi àdduna wala seen intérêt yi daraja yi àdduna moom rek leen ci moo leen ci ñoroon ngir sëñ bi jóge fi noppal leen loolu tam da nga ko jàng ci lettre boobu nga xam ne moom la sëñ bi euh, bindoon tubaab bi wala jéem am benn ñu añaane ko wala ñu jéem def loo xam ne dañ dañ am dara jafa tubaab ba ngir alal juñ juñ bëgg am foofu wala yu demee noonu sëñ bi leeral la ko ci leetar boobu euh, da nga ci xam ne itam sëñ bi jamono jooju ci leetar boobu la ko soxaloon moom mooy jaamu yàlla ak ak roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp sunnaam te bañ te bañ a wuuteeg moom euh, mboolem yi nga xam ne ñi ko doon contre mi ngi ko doon wax weddi na ko ci leetar boobu nga xam ne moom la bindoon Euh, gouverneuru Ndar euh, kon sëñ bi da nga ci jàng itam ne sëñ bi ku wóolu ku rafetoon yéene la waaye ku xamoon ne itam day mujj am ndam la ci lettre bi ni ko waxee euh, loolu da ko jàng ci lettre bi waaye nag bi mu demee ba mbooloo mi ëpp dañ xam ne lii menace la ci ñoom moo tax ñu ñu ñu ñu ñu tuumaal ko ci fen loo xam ne ñoom seen bopp xam nañ ne du dëgg waaye nañ ko génne réew mi ndax yaakaar ne buñ ko soreelee nit ñi Ah, danañ noppali ci moom wala doole ji dana wàññiku wala menace boo xam ne ah, dana leen menacé buy ne ci réew mi borom doole borom doole ju deen ak ñoom ku nit ñi wuti duutu am ndax sëñ bi ci boppam sax amoon na dongo yoo xam ne nangoon nangoon nañoo jihaat comme ni ko sëñ Basiru leerale waaye nag ah, sëñ bi digalu leen woon ñu songu tubaab bi nag te bu ko bëggoon jamono jooje ma manoon naa am ndax même armée tubaab bi dong sax amoon na ci ñoo xam ne bu songoon dañuy bàyyi tubaab bi songale ko waaye jamono jooju sëñ bi gisutoon ne mooy wasiila bi gën nga xam nga itam xikma dafa dafa bokk ci booy daa booy def daawa xikma da ci bokk sëñ bi moom wàllu mbirum jihaat ak yooyu moom mosu ko woote waaye nag tubaab bi taxutoon seen xel dal ci moom yooyu daal daanaka ci tënk mooy sabab yi tax tubaab bi dàq ko xam naa ma ñëw ci yow mi yaatu yow mi yaatu rex la kon noonu ma ko waxee woon ci ginnaaw rambaaj yi nga xam ne dérangé woon na leen ñoo bari ba tax am na bis tubaab bi yebal ab armée ñu ne dañuy gëstu këram bo sëñ bi sax tudd na ko ci xasida gi nga xam ne moom la ñuy tuddee lay sal birru da nga gis mu naa najjaytani min alladina xallasu wa fi mataa'i wa duyóor yi baxasu mooy bi ñëwee ci kër gi di di lañ lañee ko gëstu waaye lañ ko doon tuumaal naa day jaxaate yëpp du woon dëgg lee ma rek moom moo ci woon daanaka sax sëñ bi leeral na ko ci yaa jumlatan qad sallasoo bi dalaalihi man lam yakun waladun lahu aw waalidu axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu da ngeen maa génne ne ne neey damay jihaad ne damaa yor ay kënu te kenn ku nekk nag kañaan ak mbañeel la yor axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu wa zanantumu anna almadaafica indana walkullu minkum duu qilan wa yuxaasidu sëñ bi doon na jihaad waaye dam doon jihaade du la du wax moo tax mu ne leen wa waqaalukum xaqun fa inni abduhu wa xadimu abdillahi wa huwa alxaamidu li ngeen ni jaamu bi yàlla laa moom loolu moom dëgg la ndax man jaamu bi yàlla laa maa ngi kuy liggéeyal yonente bi laa itam wa maqaalukum inni ujahidu sadiqun inni li wajhillahi jalla ujahidu wax gi ngeen wax ne it ne damay jihaad loolu dëgg la ndax man damay jihaad ngir eh, jëmm yàlla waaye nag nan lay jihaade إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد لأن من تخم خم أكي على لا جهاد تلولو يتم يالا سيرنكو سيف الذي يهري الطلام ثلثه توحيده فهو الإله الواحد ثم جلس ديغا خمنا مملاي دوغي ييغا خمنا ньо ньо ньо كريستيان ييغا خمنا نيا يالا نيت لا موي ويتال يالا نخ يالا موم موي بور بيغا خمنا موي كين <laughs> كون سيغ بي خم خم لا دون جهاد واي دون اي أيقاني ومنافع التي بها أنف العنا وبها يفارقني تعبيد قاصل إلى آخره فن لن يوخون دولك تقاتل كنت مصابر إيش لاج بنان بنغا مي يوميات الرحلة مانا يوني نغا خمنا مو يون جيجي خمنا دين كويتان كرين نغا خمنا روحة تبان إمي سواي رانا خمنا سنا وخنا لالفوك فان تيوارو ميل نفسا تيوارو ميل ويسنا كتران كيانس دفوك يسو سمار ميل تراسان كريز تلسان بيجين فليش جولوف Euh, tasanteeg nag gouverneur général euh, joxe benn dogal nee nañ ko jëli ci doole xam naa nag ndaw yi nga takk yi nga xam ne moom la gouverneur yebaloon dajeeg sëñ bi fële ci jeewal sëñ bi taarixal na ko nee na euh, boo xoole nee na xaraj yow ma sabati soxor fa ama jëy sa chin من الدار التي بنيتها في أرض جلف بعدما أتتني براوة أمير دار الذي جرى بيني وبينه ما جرى من القدر ولقيت وزيره الذي جمع جيشه إلى تلك الدار المبنية للتعلم والتعليم عشية ذلك اليوم في موضع يقال له جاول وتفارقنا بعد لقائنا بإذن الله تعالى العليم آه، فوفنك وحنا نسيتاني يالا ne يالا yàlla fexe woon na ba yàlla yàlla naaguloon na seytaane ci moom ndax yàlla moo saytaane mën na leen a bañ a mënal leen li inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sëñ bi nee na ay yasaminillahu inda jeewali iblisa iznaraytuhu biyaawali ànd ak nag li li li armée bi ñàng-ñàng ak ni ñuy jëflante ak moom comme jëflante ku ñu jàpp ak li ñuy nekk nekk mbooloo moom mu wéet andut ak kurut yàlla ak yonent bi ak ak alquran sëñ bi rëxut yëgalu ko yaramam loolu nag jaam yàlla yi moom xam nga duñu ragal Euh, weesu ko doolliwu ko lut ak ngam yàlla ak ko ragal ak sax ci mawqifam bi nga xam ne ni mu génne këram ba ni mu dellusiwaate Sénégal mosu caa génn lam nekkoon ca la mas a nekk euh, dox boobu muy dox sax <coughs> kam àndaloon mooy suñu borom subhaanahu wa ak alquran gi nga xam ne moo koy leeralal yoon wi yonte bi di ko béttali ak euh, soldaar yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo koy aar di ko di ko di ko wattu mu ne asiru ma al abraari xëy na asiru watanna al anni hunaka asiru ñoom ñoo jàpp ne foofa ku ñu jàpp la waaye jamono jooju moom ah, gaa yu baax yi la àndal di dox mu ne rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri xiina adooru jamono jooju yonent beeg soldaar yi nga xam ne ñoo koy wattu ñooñu la àndal ah, raafaqani jundul ilahi al galibuun waqta waqta tiraabi faidaahu yuxlabuun naka noonu la sëñ bi continué jóge jeewal ba ni mu agsee foofee nag la dugg ak saxaar jëm ndar euh, moom la saxaar googu nag la sëñ bi faral di wooyee safiinatu lu bari euh, euh, sant di sant yàlla kon noonu sëñ bi continuer jóge jeewal dugg ci saxaar googu jëm ndar mooy saxaar googu sëñ faral di wooyee safiinatu lu bari ci ay mbindam ànd ak di sant yàlla nag ci gaal googu nga xam ne moom la ko wutal nga xam ne moom sëñ bi nit ñi ñuy xoole yëf yéeg na koy xoole moom bokkut na nit ñi moom ñi ngi xalaat tiitaange beeg natt bi waaye moom sant yàlla ci yàlla mi ko yombal liggéey bi nga xam ne euh, maqaama gi nga xam ne moom la ko yàlla jox euh, ca liggéey boobee la mooy ba moom ma ngi sant yàlla ca loolu ca jamono jooju nga xam ne jamono yi tartar la nga xam ne ñu baree bari bu doon ñooma seen xel sax du ne ci yàlla moom booba yàlla képp lay gis mu ne subhaana man fil bari wal baxri maa ajral جواري وكلا جمع سبحان من لي جاد بالسفينة في خدمتي لصاحب المدينة أنا قال جيوم جيمي قال جي بفهم سخ جي غا خاني سون بروم جوخنا كو بامانا لي جيل يونت بي موم تيلو ري لي سانت يالا سيغ بي نك ندار لا ديس تي وير سفر ووي فلا كو ديف اك لا ديسون تي ويرو غام ووي بام ديس نياري فان يي تي موجو مي نكو ميغي جوغي فوفي تي ندار بيسوب الخميس اك سن دكار غودي الجمعه muy bis bu njëkk ci weeru rabiu thani dëppoog 21 septembre 1895 euh, bi mu nekkee nag mi ngi koy melal ci ay bayitam maa ngi jégalu nag ni kàddu gi dëgg-dëgg xëy na yàlla ma ko binde ila nabi wajjahtu qablu fii ndari maa qad kafaaniya al ida kalkadari boo xoolee jisa usakurul atuuf bari na ci yoo xam ne mi ngi ko ci faral di euh, wax ndax tubaab yi nañ doon jëflante moom jëflante woo ñàkk teggin la woo xam ne andutewoon nag yërmande euh, maanaa Euh, di ko ber tëj bo tëj ko foo xam ne mel moom euh, moo moo moo moo moo fa nekk di ko dugal ci ay euh, focus yoo xam ne day xat yoo xam ne day salte nga xam ne du am air du am dara du am lumière nga xam ne daanaka mënees fa dund lu yàgg di ko sonal yooyu yëpp tubaab bi jamono yi nga xam ne mi ngi woon ci jamono jooju doon nañ ko jëflante ak moom waaye ànd ak loolu lépp nag sëñ moom dolliwu ko lu jàngal xuraan ak dellu ci suñu borom ak tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko baaxoo ci béréb bu a nekk ak lu situation bi mën a ne loolu sax mi ngi koy nettali ci ci yenn ay mbindam nee na waqaa li fii laylatil jumaati fii Dakaaru lati lati lati tadabtu fii lati fii fii Dakaaru lati lati tadabtu fiihi maa laa ufaariquhu ilal jannati lati wu'ida al muttaquun ila axiri nas nettali na ci lu bëree bari waaye gannaaw dañuy tënk rek xam naa xëy na duñ mën a dugg ci texte yëpp waaye daal yëf ya mu metti woon na lool di ko tëj fu tàng foo xam ne amul ngelaw amul dara waaye nag ànd ak loolu lépp moom sëñ bi jaamu yàlla rek la ko dolli waaye suñu borom dong la ko gën a fàttali moo tax mu ne anal amira daani min daari lati kuntu uridu al mabita fihi lil istiraha wa daxalani fi baytin laa yudxiluuna fihi man araadu lahu raaxa ne kër gi ma bëggoon a fanaan fa la fa la ma buur boobee wooyee dugal ma néeg boo xam ne kuñ bëgg a noppal duñ la fa dugal fa daxaltu fi xëy na idin wa huwa mudlim nee na mu dugg fa mu fekk muy néew bu lëndëm mutawakkilan ala man qaala illa man zulim sukkandiku nag suñ borom bi nga xam ne nag moom moo wax moo wax ne illa man zulim wa ana fi tilka laylati almubarakati mazlumun asamani llahu taala bi qadri azamati zatihi min kulli zalum nee na jamono joojee wax dëgg yàlla ku ñu tooñ laa woon wa tafaqtu usalli ala nabiyi almustafa almuxtaar sallallahu wa sallama alayhi wa alihi wa sahbihi al astar jamono jooju ma ngay julli ci yonent bi euh, euh, kon nee ma ko waxoon ci ginnaaw sëñ bi ci jamono jooju ci loolu la newoon. kon sëñ bi jàkkonte naag ay coono foofu ci diggante boobu mi ngi koy melal ci ay bayit naa ida zakartu dalika al wa dalika al amira wa thabota wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba anni al maahi neen bu ko fàttalikoo rek euh, xelam dem ci jihad ak gannaye gànnaay waaye nag yonent bi moo koy eh, wàññi eh, kon eh, lil muntaqa wajjahtu fi ndakaaru zikran bihi qad kukibal makkaaru jamono ju yëpp yi mu nekk ndakaaroog yep ak li coono metti metti mom ci jamu yalla rek la ne kon nag ci Dakar googu la sëñ bi duggee bato jëm Gabon romb kiri ak yenen dëkk yoo xam ne sës nañ ci tefes gi Euh, mboolem ñu ma àndaloon ci ñi nga xam ne ñi ma àndaloon ci gaal gi nag ñooñu ay doxandiim lañ woon ñoo xam ne xamul xamuleen woon moom fa mu jëmoon itam moom ci boppam xamu ko la nga xam ne moom rek xamoon na ko moom mooy liggéeyal yonent bi lay def loolu rek la xamoon waaye ci des moom xamu ko woon ñi ma àndal xamu leen fa mu jëm itam gaa ko ko euh, yàlla na xamal ko ne day liggéeyal yonent bi mu duggee ci gaal gi moo tax mu ne allamana rahmaanu fi safina fi safina bi anani xadimu zil madina naka mu dugg ci gaal gi rek tàmbulee taalif ak a bind di tagg yonte bi ak di sant yàlla ndax sëñ moom fu mu mën a nekk ak lu mu xat-xat ak lu jafe-jafe yi metti ci loolu rek la ma sane moo tax mun lil muntaqa wa jaxdu fi safina qablu sanan yaxludu fil madina lenn loolu li lenn ci li nga xam ne xewoon na ci biir gaal googu sëñ bi nettali na ko nee na wa baada ma xarajtu min dalika albayt almawsuuf bi fadli man jaada lii bi jamici hada alkitaab inda ahli suuf ginnaaw bu mu jógee ca néew boobu néew bu metti boobu nga xam ne moom la doon wax nee na nag daxaltu fii safinatin soxiratin yutawassalu biha ila safinati l kubra nee na dugal nañ ma ci gaal gu ndaw goo xam ne da lay yóbbu ca mag ga na foofa yàlla may na ma ci bis boobee ma wakkirlu ci moom ak muñ ba ma àgg ak sama yére ci gaal gu mag ga nee nag jamono jooje ay gaay laa fekk yoo xam ne xar kanam ñuul kukk la lañ ma gàttandoo ndax seeni xol boobu ma ngay baj baji ngir tey gi nga xam ne ahlu badar ñi nga xam ne ñoom la àndal yor nañ ko ah, nee na ñu baree bari sax ca ñooñu nga xam ne ñoo newoon foofu ah, ñu baree bari ci ñoom tuuboon nañ ci jamono jooju ngir tey googu mu yox kon ànd ak métitu tàggoog sa njaboot ak fa nga dëkkoon jëm foo xam ne xamoo fa lu bari ab doxandeef doxandeem nga fa booleeg ñi nga nekkal ñu jëflante yow jëflante wu ñaaw sëñ bi nett leen lu bare bari la xewoon ca gaal ga waaye nag xam naa ginnaaw uñ ko toppee foog naa du jeex dañ ci tànn yenn rek ngir mën a jàll ci yeneen question yi bokk na ci li sëñ bi nett li nag wi nga xam ne moo tëboon wuti ko kenn ku nekk di ree daa defee ne nag wi da koy gaañ waaye yàlla defal ko ci karaama ba nga xam ne nag wa euh, daa mujj naaw mel ni dafa am euh, ay laaf loolu nag ci ndigalul yàlla yàlla moo ko musal ci loola nee na foofa nag laa tudde yàlla laa di euh, sant te ñoom seen bopp même ki doon dawal gaal gi sax sëñ bi nee na moom ci boppam wax na ko ne yaw euh, dañ laa tooñ kon sëñ bi moom ñi ko doon yóbbu sax ñëpp xamoon nañ ne dañ koo tooñ waaye liñ koy tuumaal defu ci euh, dara liñ koy tuumaal defu ci dara kon noonu la gaal gi continuer di dox ba àgg Conakry nga xam ne mooy capitalu Guinée foofa sëñ bi wax naa hadiyati soxot la daa Conakry bil Mustafa al Maahi euh, bila Manakri gaal eh, gi continué ba jaar daw mi sëñ bi leeral na ko te mi da daw mooy benn mooy mooy benn léegi mu ne malakanil maaliku inda daw mi maa qad kafaaniya eh, inda tasaawu mi yëpp sëñ bi eh, leeral na ko ci bayiri boo de jàng bayiri da ngay xam ne gaal gi demee woon mu ne maa qad kafaaniya ida tawas ida tasaawu mi maa ngi jégul baax a baax ci baat bi noonu la gaal gi continué ba ni mu àggee Libreville nga xam ne mooy capitalu Gabon foofa nag sëñ bi am na fa ay at yoo xam ne eh, fale ko tubaab yi eh, téye waaye at yooyu itam nag ci taalif ak bind ci way ak ci wasar ci tag yonent bi ak julli yonent eh, ak ci leeral attey sharia islami ak ci mbiri tasawuf ci la ko nekkee woon ànd ak jafe yi li muy metti métti ak coono yi nga xam ne sëñ mi ngi koy jànkoonteel nga xam daanaka mënee su ko wax nga xam ne yëpp daal tubaab yi ñoo ko tegoon jamono jooju waaye natt la yoo xam ne nag maqaame gi nga xam ne moom la soxla woon nag moom mënut mënutoon a yomb loolu moom daanaka euh, euh, jar na loone jamono jooju nag ci situation yu metti yi ci la sëñ bi àgg euh, bu ñuy wax maa yomba nga xam ne moom foo mooy fa mu nekkoon fële ca ca Gabon dafa la nekkoon di liggéeyal sun borom di liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam île muy muy île île boobu nag moom la sëñ bi wax moom la sëñ bi melal na lil mucc تبا مدحي لدى الجزيرة بما كفاني كل ذي جريرة للمستف... للم... للمجتبى مدحي لدى الجزيرة بما كفاني كل ذي جريرة آه ملال غوبو لغي بوبو مدون آه لغي اليوان انتبي أك سير غمي سير جا... نك غم نك جامو جا... جامو بيالا شي جامو نجوجو من كي وحنا ليشهد بكوني عبد من يغفر الذنب وكوني خديم المصطفى بحر ما يومبا seeral ma nekk gu ma nekk jaamu yàlla mi nga xam ne mooy jéggale bàkkaar waaye ak nekk gu ma nekk tamit kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ca géeju maayomba ga diggante nag eh, am na dëkk yeneen yu fi dox ak ay peuple yoo xam ne sëñ bi romb na leen tudd na leen nag ñoom ñëpp daanaka ci ay mbindam nee na nafaani naafiu fii libar wali bi ma bihi yaxbatu ni kullu wali yàlla yàlla jariñe Eh, jariñ na ma fële ci libar wali ci loo xam ne jariñ na ma loo xam ne waliwu ne ñee na ma ci béréb yi mu jaar daanaka da koy faral di gis ci ay mbindam ilaya qaada mashtaha kullu wali madxiya xayral xalqi fii libar bokk na ci peuple yi nga xam ne jaar na ci nag maanaam xeet nga xam ne romb na leen comme baafal ba naa ba ville yi lañ leen di wax léegi ak eh, galwa moom la ñuy wax galwa waa sëñ bi mel ak Grand Bassam nag moom Euh, ab dëkk la ak euh, kilisa euh, sëñ kab labasa la ko sëñ bi wax waaye cap lopez la ko tubaab yi wax yaakaar naa yooyu yëpp da ngay da ngay gis sëñ bi di ko melal ci mbindam moo tax mun a eh, sëñ bi da koy tudd ci mbindam birab yooyu mun a ilan nabi wajjahtu inda ba fali xablu bi ma bihi anaara mahfili baafali aw turu aw turu aw xeet la nga naa lil muntaqa marxi يا عند بافلي بما أنا روطني ومحفلي آه، دقيق استمت من ولادي وشكري في اقترابي ومحفلي لمغن قضى للحاجة في أرض بافلي منسوس وبافل تبارك ربي اللي قضى الحاجة وحده فقيرا غريبا عند قلوى وبافلي آه، يب أي توري دكلين أك أي توري خير شق على الشيطان عند قلوى كوني خديم من كفاني البلوى هديتي للمصطفى في قلوى محت جميع ضرري والبلوى أذهب عني الله في جرم بثا قبل مبارزي إلى آخر البيتين كن آه، للمنتقى وجهت في قبل بثا ما قد كفاني عدوا حبسا آه، كن سن بي اي بريب لا يوم جار اك اي خير يو خنا رومبو رومنا لين اندك نك دوغال بيغا خاني توابي جيلون نانكو غير ني kile wutaloon nañ ko nag fukki dërëm yuñ koy fay par weer waaye sëñ bi nag suur gim suur tubaab yi tax na loolu mosu koo jël diiru li nga xam ne mi ngi nekk fële ca Gabon la mës mësta laal loolu lam daan lekk mooy li nga xam ne moom la ko murid di daan indil mu jóge woon Sénégal ci léeg kenn indi dara yooyu mooy li mu doon jëfandikoo waaye mës jëfandikoo li nga xam ne moom la ko tubaab yi wutaloon ne ab salaire la buñ koy fay te lu bare bari ci jamonoom nag da daan saxal sax nag koor muñ xiif boobu nga xam ne moom moom moom moom la nekkoon ak mar wi ak ñàkk gëm ñàkk doyloo yàlla sun borom subhanahu wa taala nga xam ne sëñ moom rek la ma sa jàpp ne moom dong moo mën a wërsëgale waaye keneen du wërsëgale karabtu fil bahri anni la amu diiri ila nasara abidil maai wa tiini bind naa ci géej gi ne duma tàllal sama loxo mukk jëm ci chrétien yooyu nga xam ne ndox ak tiin rek ndox ndox ndox ak ban rek la ñuy jaamu ñoom niti matière lañ نانا يدي لمغن كريم نافع صمد لا لدراهم تأتي من سليطيني نانا سما لخم سما برام بقلا كي تعلل وعيد مكو تعلل كو خمني دو دو دو مكو تعلل دو مكو سخ سخ لو ما يدرم أسمور أسمور صندو لا يبايكو نانا جزاؤه pay goo xam ne ay buur moo ma koy jox ak di sàkku ay wërsëg yoo xam ne euh, euh, ci ñooñu la jóge kon sëñ bi mësta soxla euh, loolu ko gaa yi jox kon sëñ bi noonu ñu ko waxee woon suñ borom képp la mësa yaakaar ne moo ko mën a jëriñ mbaa moo ko mën a lor ànd ak xawlu tiit tiitaange ji ni muy mettee ak situation bi ak tubaab bi caay-caay gi ñu ak caay-caay gi gi jëmale woon sëñ bi sëñ bi mësta raf mësta xalaat kurut suñu borom mësta sax yaakaar ci ñoom luñ koy jox loo xam ne dana ko dimbali ko ci genn wet moo tax mu ne jazauhu jalla yugni an jazal umara wa an tatallubi rizqin minhu matmuni nee na pay gi nga xam ne moom la ma sama borom di pay doy na ma ba soxla pay goo xam ne ay buur ñoo ma koy jox wala may sàkk wërsëg goo xam ne xam naa ne garanti na ko ginnaaw bu amee nag fukki juróom-ñaari at yoo xam ne euh, Euh, def na ko fële ca Gabon di jaamu yàlla di liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di bind di taalif di ci way ak ci nefar jamono jooju nag la tubaab yi tàmbali di changer position di xool nag nuñ ko mën a delloosee ci réew mi jamono jooju nag la sëñ bi wax nag di sant sun borom subhanahu wa taala ci loolu moo tax mu ne qawal azizu alladi ma zaala muqtadiran dofi wasalama ni kullu salaatini nga xam ne moom sëñ bi lu xew sax du jàpp ne tubaab yi def nañ ci dara boromam képp lay gis ci lu ne moom yar allah fi kulli shay'in euh, moom itam jamono jooju nag la tàmbali woon di waaj ngir doon na préparé nag delsi di itam ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu delsi delsi delsi ci am réewam ci nam gëne loolu itam sëñ bi doon na ko ñaan doon na wax naa wali hab wali yakunu ahmada fa ma yasurru nafian wa xumida kon yooyu yëpp doon na wane ne sëñ bi itam doon na ko ñaan moom itam moo tax mu ne fii maa yasurru naafian wa xumida mu ne jaali al awda dawaman ahmada wa salliyan ala al xabibi ahmada sëñ bi doon na ko ñaan doon na ko waajal itam ndax itam daanaka xamoon na nag sëñ moom daanaka doon ci kumpa daanaka lu ci bari itam sun borom xamaloon na ko ci baatin nee na yasir rujuci li tuuba waxmini waqini alal wara waltu iblis hamma iskana yooyu yëpp doon na wane ne kon sëñ bi doon na ko ñaan moom itam ijaal rujuuci ila qawmi saadatana wal takfini yowma jamail xalqi niiraana waaye nag texeem gi noonu mu ko ñaane woon tam noonu la ko suñu borom defee ndax wax dëgg yàlla texe gi delsi gi texe la si ñëpp te loolu itam képp ku añaanut wala nga xam dara te nga ci sabat sëñ Moussa xam naa kon ñu yemandi fii ndax daa mel buñ ko toppee rek daanaka waxtaan wi mën na cee far yem ngir ñu mën a jàll ci beneen point jërëjëf Cheikh Moustapha ci yaatal yi am solo yi ak leeral yi nga xam ne yaa ngi indil si ahmad bamba historiquement sëriñ tuba tariqiyan nga xam yang yaa ngi tënkal jaar-jaaram bi mu déparé jolof jëm dar jóge fi dem dakaro ak euh, dëkk yi nga xam ne romb na fa ngir jëm gabon muy lu am solo loo xam ne dinañu dimbali ngir ñu mën a gëstu sëriñ bi gën a gëstu tamit ay jaar-jaaram euh, sunu laajum ñaareel dafay aju ci li nga xam dañ koy jàng ci téere yi ndax borom xam-xam yi dañuy wax ni eh, li ñu naan xotti baax wala xar baax muy baat boo xam ni bu ko ab yonante defee dañ ko woowee mojisa su ko awwal yi defee muy nitu yàlla dañ ko woowee karaama sëriñ tuba ak i karaamaam karaamay seexul xadim xëy na lañ bëgg nga tuddal ñu si yenn yoo xam ne incha allah dinañ ko mën a téye mu doon ab yóbbal ci ñun waa jërëjëf sëñ Moustapha sëñ Touba nag moom léppam kiimaan la léppam amul lu ci dut man wet googu xool it daanaka da nga naan karaama la wet gu mu mën a doon nag moo xam ci jikko yi la moo xam ci jëf yi la moo xam ci wax yi la moo xam ci xam-xam ba la moo xam ci la muy taalif la sëñ Tuubaa amul lu amul lu man ci moom mucjisa sax laay wax ne moom la jëmmi sëñ Tuubaa mucjisa la waxal na ko sax boppam subhaana man jaalani lil Mustafa mucjisatan waliya jaala bistafa mooy koo xam ne wet goo ko xool mu nekk ci man bokk na ci rek daanaka gi may tàmbalee am na sax yu may lim xam naa dama ci lim yenn rek ginnaaw waxtu yootowut noonu waaye jamono jooju ku xamoon doole France ak caay-caayu colonisateur yi mu man leen a dëkk bëreeg ñoom ba dil siwaat la mu doon taxawal mu continuer di ko taxawal fexe ba téye jullit ñi ci ñu bari ci jullit ñi ci lislaam formé leen ci ànd ak loolee mu doon def dëppawutoon ak projet bi nga xam ne moom la tuwaab bi defoon ndax moom la la mu naroon mooy yàq projet yi ñi mel ni moom ngir christianisme mën a wuutu lislaam ci biir Sénégal mu mën a taxaw former nit ñi jàngal leen ba ba lislaam ji raw ba ñu ba ba ba ku mel ni docteur Ahmad Lo keneen man cee jot loola rek dama ne la kiimaan la te it leen a xoole lu ñu réer mosu leen a teg fenn itam seen alal ji nga xam ne itam moom lañ yor sëñ bi mësu koo yëgal yaramam maanaam bañ gi nekk ci moom rek ak révolution maanaam maanaam bañ gi xeetu xeetu bañ gi nga xam ne moom même sax boo tegoon fële lislaam bañ gi nekk sëñ Tuubaa rek euh, bu ca yamoon nga ne loolu kéemaan li ma nga naa wa minhum man in raa nasraani yaxsibhu min malaika rahmaani am na ci ñoo xam ne bu ñu gisee tubaab dañuy daan jàpp ne malaaka la ngir ragal guñ ko ragal wala fonk guñ ko fonk wala yëkkati guñ ko yëkkati ومنهم من ينسب التأثير لهم وينسى الخالق القدير يعني أمس نيني صح نيو خان دفن أن من نيو جيخي تلار فاتي سن بروم نجيس نيكي مست مستفالي صح أبتواب مستفالي صح كو خان نيكو يخنج نجيسو <laughs> بوري خو تالي فمي دنگنا فالي سو يجيب سوار الجسم سوار الفتا وسو الفهم نخاني تلوالي لو أم صلول جم سبب أغري دو بين أه عندك لو لب سن بروم كيب la mës a gis mësta gis leneen mësta faale ab tubaab wa waxidullaha walastu ushriku shay'an bihi xiina siwaaya yushriku nee na yàlla moom man moom dong lay wéetal bu fekkee ka am na keneen koy bokkaale yàlla ak leneen man suñ borom képp képp képp laay wéetal mosu leen a faale lahu ufawwidu umuuri bin nabi an kulli ma an kulli ma lam yarda daa tajannu bi képp koo xam ne da ngay jana boog yooyu muy tubaab bi wala keneen <coughs> nga di ko gërëm man loolu ñuru moom man sama mbir yëpp eh, yàlla laa ko jooyal jëm eh, kon sëñ bi noonu la ma samel xaar nag ma ñëw tudd ci yenn ci kiimaan yi nga xam ne eh, sëñ jot na koo tuddal boppam ci karaama yi nga xam ne suñu borom jox na ko waaye daal dëgër gi mu dëgër ci kanam tubaab bi ak ñàkk gi mu leen ñàkk faale ànd ak li muy taxaw ak ñoom ak doole ji ñu yor mësta gis ne dara lañ loolu moom bokk na ci kiimaan yi nga xam ne man frappé na ma man man man yëg naa waaye mu ñëw limaat yenn ci karaama yi nga xam ne bind na ko ci yenn ci ay ak euh, afwan ma supprimer vocal boobu waaw <coughs> euh, dama doon wax ne sëñ Muntaxa sëñ Tuuba wet googu xool rek kiimaan ba la wetu xam-xam wetu ay jikkoom wetu ay melokaan wetu ay waxam wetu ay taalifam defe naa ne lim bind rek boo ko dajalee xam ne kii euh, du kese ay waxam itam boo ko dégloo daal di koy xam waaye ay melokaan tam boo ko jàngee daal di koy xam sëñ Tuubaa léppam karaama la ah, dama doon melal dëgër gi mu dëgër ci kanam tubaab bi ak ak bañ gi nekk ci moom dama ne dama doon wax sax ne même buñ tegoon lislaam fële bañu sëñ Tuubaa ak aw fitam ak dogu gi mu am nga xam ne mosu cee jóg ba muy ndaw ba ni mu fi jógee principe yi mu mën cee sax rek bu ca yemoon ñu ne loolu kiimaan la rawat na nag ah, yeneen yi nga xam ne dolli ko na ci nga xam ne Moustapha la tubaab bi ànd ak li muy taxaw ñoom ak li ñuy saay-saay ak li ñu koy sonal sonal mosu leen a teg fenn doole ji ñu yor itam tegu ko fenn moom suñu boroom rek lay gis mu ngi wax loolu naa wa minhum man in ra nasraani yaxsibhu min malaa'ika rahmaani wa minhum man yansibu tasira lahum wa yansal xaaliqal uh, qadira am na si ñoo xam ne bu gisee ab tubaab dañuy jàpp ne malaaka la uh, am na si ñoo xam ne dañuy defee ne tubaab bi mën naa jeexital di fàtte suñu borom nga xam ne moom seen doole ji ñu rek yëpp tegu leen fenn moom jàpp ne lu xew rek suñu borom moo ko def moo ko def luy jeexital te moom dong moo koy jeexital moom waxidullah walastu ushriku shay'an bihi xëy na si waaye yushriku bu dee yenn mujisaat yi yenn karamaat yi nga xam ne nag sëñ bi tudd na ko ci ay mbindam nee na galaba bil muxtaari rabbi lil ida qabla zuhuri la ulaqi man ada bokk na ci dimbali gi nga xam ne sun borom dimbale na ko ba mu a not noon yi ci daraja yonante bi loolu bokk na ci karaama yi nga xam ne sëñ Tuubaa tuddal na ko boppam xam naa ne dañuy lim yenn karaama yi rek ngir euh, économiser waxtu wi wa galaba bil muxtaari rabbi lil ida qabla zuhuri la ulaqi man ada nee na itam qaharta lil aada yaa qahaaru yaa man lahul umuuru yaa jabbaaru notal nga samay noonu loolu nag noonu ya nga xam ne nag moom euh, sëñ Touba not na leen ku leen not rek xamal leen loola karaama la waaye nit ku boppam waru ko woon a man waaye sëñ Touba nag ni mu ko waxalee boppam kiimaan la ci kiimaani suñ borom yi mooy koo xam ne léppam wet goo xool rek mu doy la karaama subhaana man jaala nii lil Mustafa mu'jizatan waliya jaada bistafa kon sëñ Touba léppam kiimaan la bokk na ci karaama yi nga xam ne itam sëñ bi waxal na ko boppam xam xam boo xam ne yaatu na te yàlla mayoon ko itam muy xam loo xam ne manis na ko jële ca lawxul mahfud ndax sun borom itam buñ fàtte ne moo ne wattaqullah wa yuallimukumullah yàlla boo ragal yàlla dana la xamal xam-xam boo xam ne moo la koy xamal te it nag muy mbir moo xam ne sax na ci xadis ne yàlla mën naa xamal waliyu ci ilham wala ci taxdis wala ci ay mbir yoo xam ne sax na ci dundinu saxaaba yi comme ni mu saxee ci aboubacar na sadiq ak omar uh, ibn xataab ak ñeneen ak ñeneen sëriñu sun gaa yi kuy weddi sax yi weddi yu yenn mel noonu sax saxal na ne yàlla mën naa xamal ay mbir ay um-, umur gaiba te umur gaiba yooyu ne képp koo xam ne da bëgg a génne lawhul mahfuus dalil bi ko doo xam ne du du du kaneen nee na wahaba li rabbiya ilman lam yakun min a taallumi wa jaani bikun kon nee na yàlla xamal na ma xam-xam boo xam ne du xam boo xam ne ci jàng képp des koy jële te loolu nag lu sax ci sariya la boo ani bu kon ji itam jéem wax itam comme jaaxalit yaa gaaw a jaaxle rek borom eh, yàlla ci boppam sax saxal na na ci xadis ne am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ne bu ñu dog woon giñ eh, ci ne dara dana am sun borom da leen di fekk si ca loole da koy def law aqsama ala allahi la abarra eh, kon nun kun ji moom du nu jaaxal nun ju ndax xam nañ ne sëñ bi nga xam ne moom nee na yàlla képp ay def moom dong mooy jeexital moom dong moo man keneen mënut saxal ko ci téeréem ne doomu aadama mënta def dara nga xam ne même sa jëf yi bopp yi sax defu bu suñ borom doo ko doo ko def xam ne defut boppam yàlla joo xam ne day dogale dindi loolu moom weesu nañ ko ndax gis nañ ko ci mën na mu weddi ne loolu mënta ne kon boobu maanaam moom duñ ci teg ay waxam bokk na ci itam euh, ay waxam mu ne euh, waaytu uluman la tufa لا ترى في دفاتري بمدح الذي قد أذهب الكد والقعطاء خمنا خم خم يوخاني جيسكو جيسكي أي تيري نيديكو بند مادة ليل علم الصحيح الله من لوحه نعم إله الله وهنا يتمني أكتب ناقلا من اللوح ومن قلمه وفي حروفه لم أمن يعني أنا منا تخلص في لوح المحفوظ لو خم خم بين خم نيالا دكوي خم الولي لولو كوجي جيني أبدليل عليك أدليل عليك, أبدليل عليك. waaw bokk na ci karaama yi nga xam ne sëñ bi tudd na ko mooy yàlla may na ko loo xam ne mayewu ko woon mayu ko woon keneen avant moom tayit du ko may keneen ilaya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini wax na itam ne yoonante bi puukarante na ko ñit ñu baax ñi maanaam doon na puukarante ñit ñu baax ñi ci moom baaha rasulullahi kulla al anbiya alayhimu afqa salaama rabbiya bi xurbati ashra sinina bi xidam xaalisatin li dil wujudi wal qidam fukki at yi nga xam ne tukki na génn na ko di tukki nee na yonent bi puukarante ne ci ñu baax ñi ci loolu bokk na ci karaama yi nga xam ne itam sëñ bi may na ko képp koo xam ne nit yàlla may na ko sëñ bi képp koo xam ne nit ku baax nga da nga bëgg sëñ tubaa képp koo gis mu bañ ko xamale koo ko baaxut yuhibbuni li wajhi rabbiyal mu'id bi ghayri bughdin abadan euh, kullu saa'id képp koo xam ne texe nga rek da nga bëgg sëñ Tuubaa waaye koo gis mu bañ ko rek euh, te xam ku ko xam ba noppi bañ ko rek xamale kooka moom ko nar a taxee la bépp jullit boo xam ne daal sa gëm wér na moom munoo bañ sañ Tuubaa <coughs> ndax koo xam ne moo liggéeyal na lislaam liggéeyal jullit ñi sacrifice wu ci yoonu yàlla lépp lu mu am moo xam lu yomb la wala muy lu cher def na ko ca <coughs> kooku jullit bu sell doo ko doo doo doo doo ko bañ <coughs> jàmbaar ju noonu euh, ku baax du ko bañ koo ko bañ rek na la leer ne kooka baaxul نانا قلوب من قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهوا وربي المصلح قال من خمنة تخنا نيون جبل سنن كواي خل بوكو دنگ مل بانكو خمال نه بوابا خل موم دو خل كوي تخي أدخلني في قلب كل ذي فلاح وكنت أدخلتني في قلب كل ذي فلاح أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان الصلاح خالي كيب كو تخي رك يالا دوغل لنا سنتوا دوغل لنا Euh, dugal na dugal dugal dugal na ci yàlla dugal na euh, sëñ Tuubaa ci xolub képp koo xam ne borom texe nga képp koo xam ne itam bañ nga sëñ Tuubaa ci njàqare ngay ne xuloobu man lam ya la la la xuloobu man xuloobu <coughs> <coughs> man lam yuhibbuuni ala wajalin wala yulaaqoona ma raamu wala baaba la nga bëgg doo ko am te jamono yi ne ci njàqare ngay nekk xam naa xëy na moo tax ñeen ñi jamono yi la ngay dégg fañ-fañ ndax bañ guñ bañ señ bi ndax bañ ku baax nit nit ku baax koo xam ne ko koo bañ ku ko bañ da ngay son ndax jamono yi ni mbiram day gën a feeñ da ngay wax a wax nangam bi daala nangam bi daala coono bu ne nga daj ko ci te bët bi set nit ñi gën a yokk gën a gis gën koo topp gën koo bëgg shaqaa'u man lam yahwani qad kutiba fi lawhika alladhi yufidul kutaba nee na texe te di ña nga xam ne bëgguñu ko bind nañ ko ci lawhul maxfuud nee na yuhibbuni malaa'ikul baaqil karim li wajhihi maa falaaxin laa yarim nee na malaaka yi nga xam ne <coughs> ñooy malaaka yàlla dañ ko bëgg loolu itam ci xeetu karaama yi bokk ndax malaaka yi nga xam ne duñu mooy yàlla nga ne lu ñu leen seen borom def loolu la ñuy def lu mu leen tere la ñuy bàyyi nee na ñooñu bëgg nañ ko waaye bokk na ci itam karaama yi nga xam ne sëñ bi am na ko nga xam ne xéewal yi nga xam ne sëñ bi eh, yàlla jox na ko sëñ bi mooy jullit ñi nga xam ne ñooy julliti jinne yi dañ ko lañ ko sopp lool xat wadda nii man amano fil jinni li wajhi baaqin kaane li bil man ni ñi nga xam ne itam euh, gëm nañu ci jinne yi euh, nee na ñooñu bëgg nañ ko wax am na sax feneen fu mu wax ne euh, jébbalu nañ ci moom la yata'allaqa alladina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu bokk na ci karaama yi nga xam ne itam sëñ bi nettali na ne sun borom jox nag ko muy xéwal yi nga xam ne jox nag ko muy iblis naagu na ne moom du ko mën a yàqal نين أيس ربي أبدا وهو المعين إبليس مني وكذا كل لعين نين كيف كوني ربك إبليس يا الله ناقو لونا ما تمنت لو يتم بوخال إبليس يمني ميرو خير أنا خمني لونا إبليس ناقو نا تيكو بنا خنا دار دور سلوخ نين يتم ومن عجائب رسول الله عليه السلام سلام الله سلبه إلي سرا لم يرى bokk na ci itam karaama yi nga xam ne yonent bi jox euh, yi nga xam ne sunu borom jox na ko kéemaan yi nga xam ne nee na yonent bi ci kéemaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk nee na jox na ko moo xam ne moom rek lañ ko jagleel mu ne wa min ajaibi rasulillahi alayhi sarmadan salaamullahi salabuhu ilayya sirran lam yura inda siwaaya wali gayri lan yura euh, bokk na ci itam euh, may yi nga xam ne mayoon nañ ko sëriñ si sëriñ si ko jiitu Euh, ñu jox ko ko ak doondu gi mu doondu borom xam yeeg wali yi mu ne wajuttalii bi tamkiin wa rusuuxi wa quttalii mawaahiba shuyuuxi wiraasatan min ka ilayya lil jinaan wali siwaaya yantaxi dayqu zaman loolu itam bokk na ci karama yi nga xam ne euh, sëñ bi am na ko xam naa sëñ Muntaxa kon sëñ sëñ Moustapha defe naa mën nañoo yemandi fii jàll ci beneen question xam naa karama yi moom ku ko doon lim euh, doo fi jóg ndax géej gi rek am na karaama yu bare bari yoo xam ne julli ci kaw géej gi loolu itam lu wér la man am naa ci sanat boo xam ne dale na ci man ba ak yeneen karaama yoo xam ne euh, sëñ bi def na ko yoo xam ne nit ñi sax yu bari dégg nañ ko xam xam ne xëy na nit ñi ne nit ñaa ngi koy waxtaane te wér la bokk na ci karaama yi nga xam ne sëñ bi nettali na ko nee na bu bindee aras yëngutu ila karabtu htaz arshal maliki wa htaz bi tasbixi kullu malaki loolu itam bokk na ci karaama yi nga xam ne <coughs> nett lil na ko boppam nee na haajat qasaidi quluub alsaalihin wali yaqulu llahu suli kulla xiin nee na samay xasida itam day yëngal euh, euh, xooli gaa baax yi kon maa ngi wéy di nett li yenn yi nga xam ne xewal la yoo xam ne sëñ bi da koo tam di ko waxtaane nax suñ borom moo ne woon waama bi ni'mati rabbika fa haddis لأن الكتابة تدور تحت العرش بين الكرام عابدي ذي الفرش يعني ثم ذلك تيين ترون أرس هرب من كتابة المدهور وبعروضي تتغنى الحور نانا عروضم بقنا لنغا خمنا يجينا جنة دنكوي وينتو نانا يتم كنو ألك نانا كنو ألك دايدو daw كون سيطاني دايدو day bokk na ci itam yàlla nooyalal na ko xol yi ak yaram yi nee na alaana lil quluuba wal abdaana man qaada lii fii baladil buldaana bokk na ci itam xéewal yi nga xam ne dina ko faral nettali ak karaama yi nee na lu mu sàkk suñ borom rek mu mu jox ko ko loolu nag sun bor yonte boo xam ne ko ci xadis ba ne ab jaam dana àgg foo xam ne lu mu ñaan rek yàlla may ko ko wali jaada rabbi bil hadiya nee na wamaa rumtuhu min malikin qaada bil anib kon euh, yooyu bokk na ci kiimaan yi nga xam ne ba sëñ bi am na ko xam naa ne dóoru luñ mën a waxtaane ci benn question ndax ndax sëñ bi moom xam nga euh, dafa dafa dafa xaw a yaatu yàlla nag moom daa mën a maye xam naa bu dee borom bopp yu gàtt yi nag moom borom xel yu xat yi ñu ne ya loolu kenn mënu ko am nangam nangam kan moo ko mos a wax <laughs> ma mel ni euh, karaama daa bokk ci sart yi mu am ci jamono sahaaba yi wala jamono salafu saalih loolu moom xam naa ñooñoom daa mel ni Eh, kàttanu yàlla umpule na ko um-, umpule nañ ko euh, <laughs> lool waaye sëñ bi daal li ma la mën a wax moom sëñ Moustapha mooy mënees ko xayma ndax loo xalaat rek sëñ bi weesu loolu euh, kon sëñ Touba yàlla jox na ko dara joo xam ne toujours day day yokk te loolu itam ku ku ku koo bisa bët tey xool yaa ngi koy gis tey du suuf du suufee mukk nag képp koo xam ne itam jàpp nga ne Euh, ne euh, bind mbaa rambaaj mbaa wax lu dëgg mbaa ne ci groupe whatsapp di sikkal moo moo mooy wàññi dara ji suñ kilifa yi say bon xamal ne defe nga am xëy <laughs> sëñ bi noonu darajati taalu walay sa tan xafut wa na képp ku may jéem a daane rek na la daane <laughs> lu leer la xam naa nag euh, xëy na doo nga Ibnu Taymiya nañ Ibnu Taymiya ku ko sikkal baa nga bañ ko rek des na la nattu ci sa sa sa diine te nee na loolu moom seetlu nañ ko waaye xam naa sëñ Tuubaa moom bañ ko moo gën a wëral lépp ah, kon sëñ Moustapha xam naa ñu yemandi fii ba nga ñëwaat ci beneen question ngir bu fekkee am na leneen lu ñu war a waxtaane tabaarakallaa Cheikh Moustapha yàlla barkeel dund gi barkeel xam-xam bi sotti nga fi lu leer lu xam-xamee yuñ mën a dellu ci ay delluwaay yoo xam ni yu dëgër lay doon di ñaan yàlla suñu borom rek may noo xel ak xol yoo xam ne dinañ nangul nit yàlla yi bañ leen a suufeel ba ñu leen di ginnaawal xëy na suñu laaj ñaareel day jëm ci benn baat boo xam ne ñu bari sama classe gi dañ koy jëfandikoo xëy na dafa yomb lool ci kàddu ñu wax ko mais melo wa moo jafe lool muy baatu morit da ngay gis koo xam ne day nekk ca la ka neex soo ko waxee mu woote woon ni am morit laa mu nekk ci loo xam ne lu wuuteeg la sëriñ bi nekkoon la wala mu nekk ci loo xam ne sëriñ bi bu ko gisoon dina beddi loola ba dootu jëmati côté bu ni mel muy woote ni am murit la te lu mel noonu sax sëriñ bi bay jaxte junju na ko comme kàddu googu murit dëgg yombul la yombay nga wax murit laa te booba doo am morit kon jëmi morit gi sëriñ bi woote muy ab taalibe lan mooy al murit nan la am murit di mel ak yenn yoon la sëriñ bi rëdd nii la am murid di jaaree ba àgg ca la nga xam ni mooy iraadaam waa jërëjëf sëñ Mouhamadul Moustapha waa murid de moom mooy koo xam ne nag moom dëppoo nga ak yoonu almuridiyya gi nga xam ne sëñ Tuubaa moom moo tënk beesal nga xam ne moom la doon def si ci jamono te sëñ bi te taxoon moo ne lil mustapha nawaytuma maa yu sunnatahu al-ghurra wa inni ahmadu te muridee googu yoonu tasawuf la woo xam ne day yóbbu nit ki ci yàlla sëñ Tuubaa sos ko ci gëm muy al ak ci mottali yi nga ne mooy atte fiq yi ginnaaw boo seeree ne yàlla boo ne la ashhadu nag teg ci ihsaan ah, nga xam ne da ngay am sidqu tawajjuh jëm ci suñu boroom ba nga xam ne da ngay yàlla ba mel ni da gis suñu boroom subhanahu wa sukkandiku ci xam-xam nak ak liggey ak jëf ak jaamu yàlla ak teggin yu rafet euh kon loolu ci teunk moy ak murit noonu itam ci fondement yoy itam la ko sëñ bi tek al muridiya comme nako ko sëñ murtada waxe won ci téré ba ne tariqatun li tahdib al khuluqi wa tarbiyati ruuxiyati wal badaniyya kon day dimbalé julit bi mu sellal bopam ba génn ko ci lépp lo xamné jikko ju ñaaw la waaye yóbbu ko itam ci jikko ju rafet manana takhliya bolé taxliya kum ni ko sun borom newon qad aflaha man zakkaha ndax bakkan moom fek nit ki sellalu ko rek man na bañu taxé way ku ko sellal nak taxé qad aflaha man zakkaha sëñ bi nak yoonu mourid mom am mourid lam ko ñëkke def lo mom moy jàng tawxiid ba xam lan mooy tawxiid maanaam gëm yàlla leen nis ko war a gëme lépp lu ñuy gëm ci lislaam mu xam ko bu noppee itam mu jàng ba xam fardu ayneem bu noppee nag door a ñëw ci bu ciy dugg nag mu ànd ne xam na ko ndax bu ci duggalee boppam mën naa réer kon gannaaw bu jàngee tawxiid <coughs> jàng tamit ba xam fardu ayneem lu mu néew new na dem ci ab sëriñ mu boo xam ne xam na lan mooy tasawuf te sëriñ ba itam doon sëriñ boo xam ne day topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooko womat ko nag tàggat ko ba mën koo wan yoon yi nga xam ne ci la mën a jaar ba mucc ci ay ndog ngir mën a ak suñ borom subhanahu wa taala nee na ida btada al muridu biltawxidi walfiqahi waltasawufi almajidi والتصوف المجيد منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة نجا من فتنة بفك أمور الدفع تعملي كي توحيد أنا ويت السن برام تك تفق دورين يوم تسوف بوالك أو كي مذهب مين هذا مو مذهب أهل السنة والجماعة لأن أبو كريم لأن مشتي توحيد لأن مشتي فتنة قديس نكون نتي دانا كسين تبا وخم يب كيلو كفوندي بو خولي صح بيكو توا بي لاج نانكو سيون نوم ديمي داني اصول طريقه الايمان بالتوحيد والاسلام بالفقه والاحسان بالتصوف kon ma yoon yu mooy nga gëm ci tawhid maanaam xam-xam tawhid ci nga mën jaar ba am iman euh, jàng fiq ngir mën a am islam waaye nag jaare ci tasawuf ngir mën a am ihsan gi nga xam ne moo rotoon ci hadis bi te ñett yi muy wax euh, jibril moo wàccoon jàngale ko yonte bi jàngal ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wér boo xam ne mu ngi téere yi kon euh, loolu mooy fondement aw yoonam murid bi itam yooyee la ko defloo maanaam ñetti mbir yee ci la tënk lu bari ci dundu murid bi neena ci fanen neena ad'u ila al ilahi bit-tawhid wa ma ra'aytu anhu min mahid ma ngi woti jëme ci yàlla ci tawhid nak te gisuma itam weneen yoon su mën a jaar wudul wo yoon lillahi ad'u bit tafaquhi bila maylin li gayrihi wa kulli qibla ma ngi wo jëme ci sun borom ci fiq jaare ko ci fiq waye nee na lillahi adoo bi tasawufi maa al-akhlaq wa huwa samia kon ñetti yi sulasiyela bo xamne sëñ bi murit bi ci boppam bu koy woo ci yooyee la ko bëgg a jaarale nee na diine tawxiidu ilahi nnaasi bi sunnatil maaxi anil adnaasi nee na sama diine mooy tawxiid wéetal sun borom subhanahu wa taala waaye nag defee ko ci sunna si yonante bi salallahu alayhi wa sallam diine xidmatul latil maqbulu <coughs> bihi kon sëñ bi uh, maa ngi jégalu vocal boobu dama ci doon leer bi li mu njëkk a digal murit mooy mu jàng tawxiid bu noppee nag teg ci fiq bu noppee nag soobu ci yoonu tasawuf te ànd ak ànd ak ab sëriñ ndax kat tasawuf dafa doon mbir moo xam ne boo amut kilo ciy tàggat mën ngaa dugg ci lixóor fa man bi mahmahi tasawufin nazal bi xëyri tashrii murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi baxri rada comme ni ko li ko sëñ bi waxee waaye nag إذا ابتلى المريد بالتوحيد والفقه والتصوف المجيد منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنة وبعده يسلك إن رام الوصول على يدي مكمل يقف الرسول كنا بودي بجان نياري لبنو بنك دغاي سوبو bu fekkee bëgg nga àgg suñ borom da ngay sóobu ci koo xam ne da lay mottali waaye nag moom mi lay mottali itam mu doon koo xam ne day xeeñtu yoonante moom sëriñ bi ci boppam ndax wa man taallaqa bi waasilin wasal wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal képp koo xam ne jébul nga ci sëriñ boo xam ne àgg na ci suñ borom da nga àgg waaye boo jébuloo ci sëriñ boo xam ne itam àggu ci suñ borom doo àgg kon sëriñ bi ngay ngay jébulu itam sëriñ boo xam ne ci lu bëree bëree bëri surtout ci masaalikul jinaan Euh, moom mës nangu sëriñ boo xam ne euh, nit ki da ci jébulu te fekk sëriñ bi matutub sëriñ loolu moom sëñ bu da ko da koo lu bëree bëri wala sa kuluma tara wala sa kuluma kaakan wala sa kulu ci masalik ak euh, yu bëri da ngay gis ne day wax ci mbirum ab sëriñ dem na sax ba ne fa kullu cheikhin yamuru aw yanha bi xeyri idnin min allahi tabaraka wa taala wa yamuru min jihati nafsi nafsihi Eh, wa hawaa aw yanha min jihatihima fa dallun mudil sëriñ boo xam ne moom tupput yàlla tupput yonent bi sëñ bi waxut ne na kenn jébbalu ci moom sëriñ boo xam ne yàlla ci ndigalu yonent la ne ak ndigalul ndigalul yàlla ndigalu yàlla ci la ne ci la tënku eh, sëñ bi wax ne nañ ko nañ ko nañ ko topp eh, te boole sariya ak xaqiqa fa huwa alladi xoqa lahu an yuttaba kooku la wax ne nañ ko topp bu ko defee nag sëriñ bu mel noonu nag yow murit bi nga xam ne sëriñ bi moom ko àgg ci la ku ca mën a àggale te te teyit euh, euh, mu lay womat ci jaamu yàlla yaqu ak xam-xam yaquuluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada nga xam ci jaamu yàlla ci ci xam-xam la lay womat kooku la wax ne na nga jébbalu ci moom bu ko defee nag bu boo gisee ku mel noonu nag am na melokaan yoo xam ne murit saadiq noonu la war a mel mooy euh, wax na ko tënk na ko ci bayit ne maanaam da ngay dëggu da ngay dëggu ci bëgg nga bëgg sëriñ euh, melokaan yi muy wax nag mooy fàttali nag ku xool saxaaba yi nañ nekke woon ak yonante bi noonu lañ nekke woon ak moom melokaan yi nga xam ne moom la suñu naan murid noonu la war a nekkee ko sëriñam kon nag ki doon yonante bi te al ulama warasatul anbiya kooku itam ku bëgg a nekk ak war a nekk moom noona ndax mooy tax la yonante bi euh, mooy tax kilifa gépp gépp bu lay womat di la jàngal suñu borom bëgg la caa womat boo nekk wut ak moom noonu la mu bëgg ci yow du ko man ndax ki nga xam ne jaar na ci yoon wi ba àgg kooka moo gën a xam la ci yoon wa yow mi nga xam ne ëggagoo mën ngaa defee ne ñelluwee bu ko def mën ngaa jëm fa nga jëm fekk boo fa àggee awee moom nag jaar na fa ba xam la fa xew tekkiwul ne nag dalay jëm ci lu aram mbaa lu womat comme ni koy loo xam ne dafa dafa bu la digalee lu loo xam ne wala wala wala muri dugal ci lixóor loolu moom sëñ bi ci moom sax leeral na ko fa man ala siwal ilaahi dallaka fa fir minhu innahu adal innahu innahu adallaka sëñ moom loolu defe naa li mu ci wax doy na defoon naa sax defoon naa ab émission ci ginnaaw doon ba waxoon ci lu bare bëri waaye boo gisee sëriñ boo xam ne moom sëriñ dëgg la itam te ku mën a àggale ci yàlla la kooka nag la tane la la la sëñ bi di kooka nag murid saadix bi bu jébbuloo ci moom la muy def mooy na tànn bu am lu muy tànn ndax yow lii xamoo ci dara bay loo ciy tànn ka ko xam moo mooy moo ci xam la la mën a jëriñ ak la la mënta jëriñ ñaareel bi itam na nga bëgg sëriñ boobu bëgg gu gu dëggu ndax mooy tax nga mën a jariñ ci moom ndax bu fekkee bëgg googu amul mën naa am nam la war a woomate du la mën a woomate noonu ndigalam tamit saa yu ñëwee na ko topp ndax bu fekkee moo lay woomate bu la digalee nga bañ nam euh, mu bëgg ci du ko mën a am euh, saktaan tamit na nga ko récc ndax boo seenu tànn booy seet looy tànn nga xam ne doo seet lam la tànnal waaye yaay seet li nga tànn du la mën a woomat loolu moom militaire ar armée armée dong daanaka doy ne ci misaal bu fekkoon ne dañu militaire bu ne bu la sa chef digalee nga lànk defe naa ne yëf du sotti yaakaar naa it lañ bëgg du sotti euh, gaaral tamit na nga ko bàyyi ndax euh, euh, ginnaaw yow xamoo ba nga xam ne da ngay des des lay wommat te yow fii te yow ni mu lay wommate moo ko xam. kon defe naa ne la muy def mën nga caa bañ a gaaral moo tax mu ne sifaatu saadiq al murid bi ixtisaar arbaatu nadamtuha xawfa tiraar alsidqu fi mahabati cheikh abad uma imtisaalu amrihi xaytu warad wa tarku la ictiraad mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma qad rawa wa maahu salab al ixtiyaari li xusni dannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hadihi sifaat min al muridina fa yudriku thiqaat nee na képp koo xam ne itam dajale nga melokaan yi nee na boobaa da nga jot gaa yu dëgër yi kon loolu mooy melokaan yi murid saadiq tekkiwul nag ne dañ lay womat jëme ci lu araam mbaa fu baaxut déedéet loolu moom sëñ bi sax sëriñ bi koy def mooy loon moytandikuloo na ko waaye nag yii mooy tax ñu mën laa womati waaye yii mu wax ku ko xool xam ne noonu yi la saxaaba yi nekkee woon ak yonent bi ndax ku lay womat ci yoonu yàlla boo bëggee mu jariñ la noonu ngay nekkee ak moom kon nag ñu gën a leeral ne kon muridu saalik tamit gi nga xam ne moo suubu yoonu iraada moom itam sëñ bi noonu xayru taami lil muridi saaliki dawaa mu zikri zil jalaalil maaliki maanaam ngeen ji aw ñam ci murit boo xam ne dafa suubu yoonu iraada mooy mu saxoo tudd yàlla subhanahu wa taala wa xayru zaadihi zaadihi tuqaa wal faqru liman lahu qablu wa baadul amru euh, yóbbal bi gën ci moom nag mooy mu doon ko ragal yàlla moom murit bi nga xam ne moo suubu yoonu yoonu yoonu ak taalibe bi te it suñu borom nag nga xam ne suñu borom moom la njëkk ak mujj lépp moom dong moo yor mbir euh, mu jàpp ne suñu borom suñu borom moom nga xam ne moom képp la nam moom dong moo yor mbir nag amma silaaxu ko fuqul sayfun waraa bihi yakunu qaataan xabla tamaan na doon ku sàmm itam ba nga xam ne mboolem subuhaat yeeg yu arab yi yëpp na ko moytu loolu itam na xam nañ xam ne murid bu soobu yoonu iraada sëñ bi nee na ndax dafa mel da nga ne cib tukki kuy tukki soxla nga gànnaay soxla nga ab yóbbul ba war ci yoon eh, soxla nga itam yu bëree bari da tukki jëm ci eh, ak suñ borom kon loolu itam mën naa bàyyi xel ci melokaan yi nga xam sëñ bi indi na ko ci melokaani murid kon bu ko defee nag am na ñetti mbir yoo xam ne war na am murid sam nee na awal waajibin alal muridi taxsilu zaadihi min altawxid li njëkk a war ci murid mooy mu am yóbbal bi mu war a am ci tawxid qabla ishtigaalihi bil infiraadi bi zikri waxdahu bil jihaadi kon balaa beru di jàngi xasidaaka zikkara ka def yëpp na njëkk am tawxid ba noppi doonte nag loola mën na mën na caa ànd muntahijan madhaba ahli sunna maa aljamaa wa tilka aljunna na dugg na yor tamit mazhabu ahli sunna wal jamaa loolu moom mooy pakk bi nga xam ne moo ko mën a fegal ay lor ndax euh, biddaa boo ni ko ci mazhabu ahli sunna wal jamaa ci biddaa ngay ne te te biddaa day day day muur leeri topp yoonante bi iz zulumaatu biddaati biddaati atiqaadi takuffu anwaar ittibaa'i moo tax ñi nga xam ne biddaatu atiqaad lañ yor nga xam ne dañuy wax yàlla daa am béréb ak euh, lahu jihatul maxluuqa ak am na wet goo xam ne kenn bindu koog day wàcc suuf di daw ak euh, day toog ak euh, euh, sifatul udiya sax maanaam lor sax nee nañ yàlla mën naa loru di wax yeneen yu bari yu garaaw yoo xam ne ay ay xiramu nawa yi nga xam yenn jamono yoo xam ne mbindeef mu ne nga am nga mu ko njëkk nga xam ne amul nanguwoo yàlla mbindeef moo xam ne moom nee nga moom la yàlla njëkk bind nanguwoo ko moo tax moo tax bi day fekk leer topp yonent bi moo tax ñu bëree bëri da ngay gis ne toppuñu yonent bi ndax dañuy saaga ay kilifa lu ne la dugg loolu tax bi moom moo yës ci xeeti biddaa yi te léegi nag daa euh, dugg Sénégal ay biddaa xam ne euh, boo ko déggee da ngay tiit alxuraan daa yoo xam ne yu garaaw garaaw la yoo xam ne salafu saalih daan takk fiir nit ñi euh, moo xew léegi kon moo tax sëñ Tuubaa loo ne fas loo xam ne biddaa la bu ko defee nag boo defee lee ba noppi nag nga xam ne maanaam jàng nga tawxid jàng fiq ba noppi nag boo jàngee tawxid ba noppi nag boo baax dafa taxsilu ma yusaxahu bi furud al ayni fi ma sarrahu bu ko defee nag nga daal di am loo xam ne mën nga caa wéral nag safar bu ayni maanaam nga jàng ci fiq loo xam ne da nga ci xam safar bu ayni ka toxri wa siyaam wa solaati wa xaji baytillahi wa zakaati boo dem atay fiq yi rek yi nga xam ne moom jullit bu ne mënu koo ñàkk xam lu mu néew néew na ko murit xam wa baadahu yasluku in raamal wusul ala yaday mukammilan yaq fa rasul bu boobaa na nga door a dem nag seet ab sëriñ boo xam ne man buy toog fu yonante bi la te mën laa àggale ci sun borom nga nga nga jébbal ci moom waaye nag sëriñ boobu itam yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada doon naa ko wax ci ginnaaw kon nga gis ne murit bi mën naa ak suñu borom maanaam nag day aaja nag effort bu mag a mag a mag boo xam ne sa xol da koy sellal sell sellal ko sellal sa jëf ngir suñu borom dong ànd ak tamit borom xam yi nga xam ne ñoo la ci mën a gunge ñi nga xam ne ñoo jub te moytu yi nga xam ne nit la ñoo xam du ñuy roy waay booleeg sàmmonteeg nag mbooleem attey sariya te roy ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yor ngirum ahlu sunna wal jamaa bu ko defee nag sëriñ bi ngay jébbul itam mu doon sëriñ boo xam ne bu mën a àggale ci suñu borom la moo tax mu ne fasluko ala yaday mu rabbin naasixi yaquudu lil ilahi bin nawaasixi wa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal bu ko defee nag jikkoy mur itam nga yor ko ndax bari na ci jikko yoo xam ne sëñ bi limaale na ko eh, yoo xam ne boo bëggee àgg suñu borom da nga ko yor boole na ci talaasumu solaati fii jamaa fii talaasumu awaluha talaasumu solaati fii jamaatin إذ هو حسن المقتفي maanaam taqoo julli ci mbooloo wa thani tina wa thani lijtinaabu min dawil inaat moytu gaa yi nga xam ne baaxuñu doon naa ko wax léegi ci ginnaaw daanaka tënk naa ko sax daanaka mën na maa lim bëri nii ndax defe naa li ci ëpp wax naa ko fi sirri wal jahri min wa min dawil fasad thalitha تقدم الدعاء حيث اقتضى بحاجة القضاء ما أنا يتم جمعنا إلى نجاي جابنا في تم ولا من الدولة ديجيتل سايو سخل أمي سخل آه، نيان آه، سن برام قبل قبل توجه إليها جاقل بعد باهبا بوالك من بوالك أقم من ديفك يعني كل نجاح قو أقم رابع على القيام بالحقوق لجملة الخلق على تحقيق لوجه ربهم برحمة الصغير ونصح للعاصي boole mbindee fi nga nga jox leen kenn ko nekk àq ji mu yor après itam euh, bu juróomeel bi nag moom mooy euh, jëf ju ne nga def kon nam ko war a defee bañ a ëppal bañ a yéesal wal xaamisul amalu bil iqsaat bi tarki tafriitin ma al ifraat kon euh, murit ñu xam ne yomb ni ko sëñ bi tërale mooy jullit piir koo xam ne jullit piir nga koo xam ne yàlla képp la tax rek ju la neen jógu taxulaa jóg ku jaamu yàlla ku jàng ku nangam doonul lu yomb <coughs> Euh, sëñ bi nee na al abdu ida tawajjaha ila rabbihi bi imtithaali awamirihi wa ijtinaabihi manaahihi wa wasala ilayhi fa ida qaala lahu ya rabbi uhibbu kada jaam bu fekkee dafa jublu suñu borom rek topp ay ndigalam bàyyi ay tereem baag ci moom bu nee ko sama borom damaa bëgg naa nga suñu borom ne ko jël ko ndax <laughs> yonent na jaam moom يتقرب إلي بالنوافل بالفرائض day ab jaam day day jaamu yàlla ci farata yi te loolu moom lu ko lu ko gënal yàlla amul mën na jaamu yàlla ci naafile yi ba yàlla bëgg ko waaye nag bu ko ila ahbabtu fa kun samaahu alladi yasmaau bihi ila axiril xadis ñëw na ci xadis bu ko bëggee dana dana toll ci jamono joo xam ne lu mu ñaan suñu borom mu mu defal ko ko wa ida qaala lahu rabbi axaafu kada qaala lahu laa taxaf najawta sëñ Tuubaa nee na bu àggee situation boobu nag bu ne sama borom damaa ragal nangam mu ne ko bul ragal ndax yow mucc nga ndax li ànd fa xaaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ndax yàlla moo bind lépp te lu ne mën na ko <laughs> kon wa in qaala lahu maa yuhibbu muxtaaran <coughs> xar leen bu fekkee mourid bi agsi na fa nit ki agsi na foofu nag bu fekkee la mu bëgg nañ ko ko lu moo gën ci moom yàlla jox jox ko bu fekkee bëgg ko nag mu mu remplacer ko lu ko gën ndax nee na nee na wayin kaan ma yuxibu muxtaaran lahu awsalahu ilayhi kama talab wa illa baddalahu ma huwa xayrun lahu min kon loolu la ci tënk mën nañ ne mourid moom mooy mooy ki ki melokaan ki yor yooyu melokaan ñëw na ñu muridu sadiq al muridu sadiq al muridu wasil yëpp ñëw na kon sëñ euh, Moustapha Kamal boo amee beneen leçon. Cheikh Moustapha ci njàngale ma am solo mi nga xam ne ñoo ngi koy taataanee ci yow di ñaan yàlla def ñu ay dëgg-dëgg yi saalikiin ci niñ déggee kon murit nekkul loo xam ne ay waxi kese la dafay ànd ak jëf ju sell ak pas-pas bu dëgër bu tegu ci alquran ak sunna waaye tamit nga ommatu ci ginnaaw sëriñ bu mat sëriñ yàlla nañ ci yàlla xiir ba nu mën a jaar ci yoon yooyu nga xam ni sëriñ bi jàngale na ko. Euh, xëy na ñaari laaj ñoo ci desoon dañuy leb benn bi nga xam ni Cheikh Moustapha ci ab gëstum ak ci seetantalam ci njàngaleem sëriñ bi gis na ni sëriñ bi kat léeg-léeg dañuy gis mbindam ay mbir yoo xam ni moom ci gëstoom Cheikh Moustapha da ko tuddee asulaasiyatul qadimiya maanaam mu mel ni léeg-léeg njàngale moom day séddalikoo ci ñetti xaaj boobu dañ koy leb ba jëmi jamono incha allah mu nekk loo xam ne dañ koy beral waxtaanu boppam di dikk ci laaj bu mujj bi rek mooy li nga xam ni moo boole tarixa yi mooy tarixa yi nga xam ni ñoo nekk ci àddina lu mel ni ak yeneen ak yeneen leen boole nag mooy tasawuf tasawuf googu lañ bëgg a laaj ab question boo xam ne moonu boole ñun ñi ci jotaay bi ñu nekk mbooloo mi ñu nekk Serigne Touba ak tasawuf mooy suñu laaj bu mujj di la suñu borom defal la tawfiix defal la jàmm defal la barke guddal sa fan yàlla bari say kem ndax ku mel ni yow mënta ñàkk ci tasawuf mënta ñàkk ci lislaam mënta ñàkk ci réew mi di Sénégal. waaw bisimilah euh, xam naa tasawuf na comme ni ko ñëpp xamee des na ko ëtlaaq jublu ci xam-xam bi nga xam ne mooy jàngale ni ni nit ki mën a seetle baag suñ boroom waaye des na ko itlaaq tamit te jublu ci jëmmi mbir ma itam jëmmi sell ga ak jëmmi euh, situation ba nit koy nekk bu jaa bu jaaree ca nañ koy tàggate baag foofu waaye des na ko itlaaq ci yeneen maana euh, waaye li am solo daal mooy ñu xam ne diine yàlla moom ñaari xaaj la bu njëkk bi mooy ñetti xaaj la bu njëkk bi mooy iman ak islam ak ihsaan comme ni ma ko rombe woon ci ginnaaw jur dit sama defe na bu dee tawxid nag ci euh, nit ki balaa mën am gëm gu wóor ci tawxid la koy ame bu dee itam li ñuy tuddee lislaam muy ate fiqi yeeg sahaadataan yi ci li ñuy tuddee lislaam ci istilaaxul ulama comme sax noonu la ñëwee ci xadis ba itam xëy ñoom noonu lañ koy dégg bu dee nag bu ñetteel bi tamit ihsaan nag kooku nit ki mi ngi koy amé ci tasawuf moo tax sëñ bi naa fa awalun bit tawhid wa thani bit tafaqquh al hamili wa sixatu thalith wa thalith bit tasawuf wal jam'u wajibun bila tawaqquf way na ñetti yi nak mëni sulé na ñaka bolé way nak diina ñetti xaj yoyu bu ñettel bu moy bi nga laaj muy tasawuf donte itam daanaka bala laa leen amal njëriñ dañoo ànd ñett yi mun ñoo ñàkk ànd mbaa bu ci benn manqué du sotti moo tax sëñ bi naa ka annama tawxiidu fii da fii fii dal xaali كانما توحيد في ذا الحال روح لدين الله ذي الجلال وجسمه الإسلام والإحسان وجسمه الإسلام والإحسان لباسه الذي به يزدان تميل توحيد مدروغي يرمي للإسلام وإحسان موي ci yi nga xam ne ci lay waaj yi ci lay taaroo ihsaan boobu nag buñ bëggee xam mooy lan mooy nit ki di jaamu yàlla comme mel ni ku koy gis loolu nag moom kon dana dem ba nga xam ne yàlla dong nga ko ñor lu muy def lu ne itam yàlla dong la ci jublu sidqu tawajjuh kon moom dana ko am sëñ bi sëñ bi xam ne ne ko ne ihsaanukum an taabudu zal minani ka annakum tarawnahu bil ayuni in lam takunu qad raaytumuhu faqad raakum fa raaqibuhu ihsaan mooy nga jaamu yàlla mel ni da ngeen koy gis ah, ndax bu fekkee gisu ngeen ko itam mu ngi leen di gis kon sellal jaamu yàlla gi bàyyi jëpp jëf joo xam ne day tere eh, buñ koy def day mel ni kon buñ buñ buñ jàkkaarloo nag suñ borom duñ def jooju jëf te xam ne itam di ko fu di fuglu teewa teew te teewaay ak suñ borom xam ne mi ngi ñuy gis ci suñuy jëf ñu ragal mu gis ñu ci loo xam ne dana koy tere bëgg mu gis ñu foo xam ne rek euh, fu mu gërëm la loola mooy ihsaan kon euh, mënee su def ihsaan te doo jaamu yàlla waaye itam faaw nga am ngëm gu leer faaw nga am tamit lislaam ju leer euh, doo ihsaan doo mën a sotti ko tasawuf balaa wér gëm ak àttey lislaam yi moom du mën a ñàkk tasawuf nak comme non nga ko waxe te kurel yep mu boole ñu euh, ñun ñep ko bok ap ponk la nak ponk diine yi doonut lo xam dañ ko sos ni ko ñen ñi waxe ponk la bo xam ni ko señ basiru waxe mbir ma lu amoon la yenn dof yi wax nak na baaru suuf yi mi ngi mi ngi kereewu dat sangam ñoñu dañu ñoñu ñoñu si ñoñu wëruñu waaye des na leen laacc baatub xanbali ak baabu baatub malik yi kañ la sosu ak baatub shafii yi kañ la sosu wala ñu ne ak shafii yétu ak ndax ne ana shafii yun day tekki rek ne da sos lu bees euh, jëmmi baat bi ak jëmmi mbir mi du benn mbir mi moom man baat bi sax ni fii la jógee yooyu man daanaka so du ma ci sonn ndax bukk rek lépp sol lépp solu mooy jëmmi mbir mi mbir la moo xam ne daal la ko tax a jóg mooy sellal nit ki ba mu mën a suñu borom am ixsaan gi nga xam ne moo ñëw ci xaddis ba loolu moom mooy li wér li taarifa yi bari bari loolu rekk la du leneen xam-xam la boo xam ne nag euh, ci mboolem kilifay tasawuf yi euh, dañ koo bàyyi xel lool ndax xam nañ ne euh, buñ ko ñàkkee rek ñàkk le ñàkk diine daanaka moo tax sëñ bi doon wax naa qul dafa jiilu za zamani jahilu ilma tasawufin fa xayran ahmalu nee nag wax naa ne day jamono yi ñu toll dañoo réer réer xam-xam tasawuf waaye bi ñu ko réeree nag dañoo fekk aw yiw ñu sàggane ko neenal ko id jahiloo bi kaw nihi sabila li xadratillahi fa xaaboo jiila xamuñu woon ne day mooy yoon wi nga xam ne mooy mooy jëme doomu aadama ci xadra xadra bi yàlla loolu tax ñu sooy wa jahiloo bi kaw nihi xayra duxar yowma taxaabuni idal xawlu xadar xamuñu ne de mooy ngën ji ndencat al xiyaam wa jahiloo bi kaw nihi xayra ulum yufnil fata umran kon xamuñu ne mooy ngën ji xam-xam yi euh, kon yu yu yum ni fara umruhu fiha umum kon euh, wa jahilu bi kawnihi istiqaama wa manaahi alfata min almalaama xamuñu nag njuble goo xam ne day téye nit dugg ci loo xam ne dañ ko koy yedde nga xam ne sax bu dee ci mu tasawifa yi fardu ayn lañ ko def ndax xam nga itam nit ki tàggoog bàkka jik jik jikkoy biir yi lu mel ni gis talak añaa nag rëy ak kaaw jëf ak yooyu nga xam ne day teye mën a àgg ci borom waaye sun borom waaye day man a day teye nit ki itam mu mën a jëf-jëf ju nangu xam nga loolu tàggu moom farata la maanaam mu ne ama tasawu fardu ayni la lil Ghazali bi xëyri may ni jëmmi tasawu moom fardu ayni la sax moom waxuma la nag muy nekk loo xam ne dañ ko sosoole dañu ko dañ ko sosool waaye amul yenn jamono ci lislaam yu mës ta nekk farata moom tasawuf kon loolu lu mat a bàyyi xel la moo fiq ne jamono yi ne dañuy wax ne dañ koy boole moom ma ni suta topp bee bàyyi bee moo tax sëñ bi naa waman li faq faqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladi lahu an yuttaba kooku rek mooy ki ñu war a topp ci boori ñaar ñi waaye waxuñu koo xam ne dangaa def lee bàyyi lee ndax ndax waman tafaqaha la tasawufi fa doo tafasuqin sarixin fa arafi képp koo xam ne dangaa bëgg yem ci tasawuf bëgg a bàyyi àtte fiqi fële xamal ne yow ab saay saay nga waman yakun bi akdi saa fa innahu ila tazanduqin amalu shanahu moo tax képp koo xam ne da a yem ci tasaw tasawuf tamit bëgg a euh, bàyyi fiq yow zindiq nga boo bëggee ne ci fiq kese bàyyi tasawuf te tasawuf moom mënu mënu mënees ko mu jullit mënu ci ñàkk ne ndax lislaam ko indi ay doon saay saay nga mën a doon moo tax ñi wax na ah, sëriñi tasawuf yi dañoo wax ne xaqiqa rek ci lañ mën a yem léegi ci fiq lañ ko war a sànni li ñooñu benn xamuñu tasawuf wala boog ñemee nañ yàlla kon xam-xam la boo xam ne day sellal ni ko imul jëw si waxoon ne xaasil bi moom mooy xam xam-xam la boo xam ne day sellal nit ki ci fexe ba nit ki am jikko yu rafet mbir la mbir la moo xam ne noonu lay melal nit doomu aadama loolu rek mooy tasawuf noonu itam moo dëppoog taarif yi nga xam ne moom la ko ulama u taarif waxee ndax genn kilifa gis naa ci mbindam mu ne daanaka am na junniy taarif waaye taarif yëpp ñoo bokk fuñ jëm kenn ki da koy taarif ci xaal kenn taarife ko ci baad ahwal kenn taarife ko ci kenn ku nekk taarif jus yi ngay def waaye boo xoolee euh, menn mbir mi rek la jëm mooy luy tax nit ki tàggoog yëpp jikko yu bon waaye tàggoog yëpp jikko yu baax loolu nag ginnaaw xam-xam la boo xam ne day aji tàggat nit ki ndax doomu aadama ni ko sëñ Mouhamadul Amid Diop waxe woon ca Irwa un Nadim jàng rek doyul ndax nit ki mën naa jàng boo jàngee te te yëruñu la itam mën naa am jub mën naa am nga bañ a jub waaye boo ak sëriñ boo xam nag tàggat tàggat la ba entraîné la ba nga xam ne da nga mën a sell nga xam ne balaa tàqalikoo ak yow xamal sa yib bopp loola moom daanaka munta ñàkk kon day aaje nag nga seet sëriñ boo xam ne bu matub sëriñ la te xam yoon wa موامد لك فمن بمهمه تصوف نزل بخير تشيع مرب قد كمل فانه يخوض في بحر في لجي الردى ولا يجيء منه شيء ابدا كوتي دوغ كوتي دوغال sa bop bëgg dem ak sa bop te amu ko ci tagat yow xamal rek ku xus ci ci legum alkande nga te dara do ci amé dara itam nak لأنه يقودها الشيطان والنفس والهوى كما أبونا خمال الشيطان ركم ولي ومنخ بير مو خامني مونو تا تاغت سبب بو جيدو جيري سي جيما تاغت سبب ا آه، لونا من لا دال ومن يخوض بحر الحقيقه بلا كل الشريعه فهمرو فهم قهن جلا كيف كو خاني تام غامغو واي حقيقه بيسي دوجو سي حقيقه تا بوري وول سي شريعه ايتام كو خوس تي جيلو حقيقه تا دوجي وكو غالو شريعه خمال لي يو عبد الله غن نيما كو خاون تي غيناو تصوف بوري خ بروم خامي تعريف تعريف بري lenn la ñuy wax waaye bari rek ñooy wuti waaye daanaka boo xoolee ba ci biir xam ne ñoo bokk li ñuy wax bu dee ni dafa wax ne sëñ Tuubaa daal moom indi na taarif Cheikh Ahmad ti Abdul Qadir al mu ne وقال شيخنا wa za لا in tasawuf ala تبجيل al التصوف على ala الأركان مبناه على ثماني إننا تعرف الشيخ عبد القادر الجيلاني آه، اندي تعلم شيخ احمد تجاني وقال شيخنا آه، وقال شيخنا الرضا التجاني لا زال بين القوم كالمرجاني ابري مو اندي تعرفهم شيخ احمد تجاني ابري مو اندي تعرفهم غزالي لان حد حد تصوفنا للغزالي تجريدنا قلوبنا للعالي آه، فوقما ابري فوق فوق لا واخي تعرف غزالي دما كاي قاتل غير وقت ولي جلس دا بري وتدا مي بغي غدي اندي تعرفهم زروق دا فلي تصوف اصول تعرفهم تسعة أشياء لدى من يعرف إن تعرف في شعر عين دارني وقال بعض بعض العارفين أيضا رزقنا به الإله فيضا إني بمن وحي سيري تصور كان كونك مين أنك تعرف تعرف بقول بسيب الخمر أنك كم قال أنت الوعي كقول بسيب لنا خمر لأن لني أخباري ركوة وعي فين جو جبان ل آه، جنابنا مين أنك متنكو دارني والحاصل الصوفي عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمرض كالأرض يرمى فوقه كل قبيح ولا ترى من بطنه إلا مليح يطأها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم كن تصوف فم سرين تو أموي آه، خم خم بو xam ne bu am njëriñ la boo xam دي day ànd ak jëf joo xam ne Eh, ànd ak dëddu àdduna dellu ci suñu borom eh, doyloo suñu borom bañ sukkandiku ci mbindeef yi jublu ci suñu borom te jaamu ko jaamu koo xam ne koy sellal eh, buy bëgg mu bëgg ci yàlla buy bañin mu bañ ci suñu borom subhanahu wa taala jëfe alquran ak xeeñtu jeexiti yonent bi kon loolu mooy tasawuf sëñ Tuubaa bu ko defee nag am na ñu bari ñu koy woote woon ak ñoo xam ne xëy na dañuy tuddoo sëñ bi ñoo xam ne itam jàdd nañ yoonu sëñ bi loolu itam dafa am xam naa xëy na sax bu wax bu ko may bu bu bu ko bu ko bu ko bu ko waxtu bi may woon danañ ci ñëw waaye lii daal moom mooy tasawuf xam moom ah, boo xoolee sax am na bayit yoo xam ne am na benn lettre bu mu bindoon maam Thierno ah, boo xam ne indi woon na ci ay bayit yoo xam ne siiw na loolu xam naa ah, ñun liñ si ñor fii rek mooy tegtal gi ko tegtaloo gi ko sëriñ bi tegtaloo muy lay sa tasawufu lu su suufi tarqaaxu ولا بكاء, بكاء إن غنى المغنون ولا صباحا ولا سياحا ولا رقصا ولا طربا ولا اضطرابا كان قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع وتتبع الحق والقرآن والدين لي سنبي نيون جلية ربوها سنبي من كل من فعل نكو تصوف بكرب ريك يور أي ريوح عندك ويا داخ ولا غي جوي بفكر نيني ويا غي جوي كدفيف ولا غي يوخوك فتسكن te sigaree ko jaayoo ko def yëpp mel ni ab dof waaye tasawuf mooy yow sa bopp nga sell ba doo am am na ndax te topp dëgg topp alxuraan ak diine nee na loolu mooy moo moo mooy tasawuf boole nag topp sunna nag loolu moom dafa bari ci mbindi Sëñ Tuubaa loolu sax tanabbahu yaa ayyuha subbaanu qaadakum ilal hudaa al mannaanu fi anna sunnata nabiyyina al amiin عليه أفضل الصلاة كل حين كانت هناك رسم دار قرعها في ذا الزمان لمضي الحنفاء يندوني كانت خمليني yàlla tër te yàlla leen yàlla woomat jëme ci njub xam leen sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka jamono ji daa daa daa daa mel ni rëddu kër boo xam ne daa raaf raaf te ñi ñu baax ñi nga xam ne dem nañ ci koy ñi ñu baax ñi nga xam ne itam jóge na fi ndax dañoo bàyyi topp aasaar yi ñi ñu baax ñi fi newoon ngir ay guddaay yoo xam ne dañ koo sos iz turiqa iqtifaau aasaari salaf li bidaain qad zuyinat baynal xalaf boo demee ci xoqal bu kaa itam xam naa dañ koy gàttal tudd na fay jikko yi mu tasaw yu fay ci wàllum lu ñu mën a jaamoo yàlla ak euh, nu ñuy tuubeeg ci lépp luy jeex ak nu ñuy wëkkirloo ci seen boroom ak euh, yu baree bari ci jikko yi nga xam ne mooy jikko yi mu tasaw yu fay tudd na ko ci xoqa euh, xoqa moom damay wax ne daanaka mooy carte d'identité carte d'identité ab suuf yi tabaarakallah Cheikh Moustapha ñoo ngi lay ndokkeel bu baax di ñaanal suñu borom defal la jàmm am nañ mbégte lool nag mbégte moo xam ne ci suñu xol la jugee ak cant goo xam ni noo ngi koy yëgal suñu borom subhanahu wa taala goo xam ne dañ la koy sante ci xam-xam bii nga xam ne sottil nga nu ko di ñaan yàlla defal na ak digg ak ak jariñu dellowaat nga noo ci am njàng yéesalaat nga tamit pas-pas yi di yàlla suñu borom guddal saw fan wéral say cër nga yàggal yaatal lislaam yàggal leeral lislaam bokku ci jant yi nga xam ne dañuy leeral lislaam ci réew bi di Sénégal noo ngi lay ndokkeel nag di la sant ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo dajaloo ngir jariñante ci xam-xam ci njiital Serigne cheikhuna basir ak ci mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne yéen a ànd liggéey bi di wax ni taalibe yaa ngi sant bu baax a baax di ñaan yàlla gën a dëgëral taxawaay bi gën a dëgëral ànd bi gën a yokk positif bi waaye tamit gën a boole xol yi sant nañ bu baax nag xëy na cant gi moom lot na ci làmmeñ yi ñu tudd ko xool yaa ngi koy yëg borom baa ngi xam ne ñun ñoo ngi cant cant goo xam ne moo ngi jëm ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.